jëriñ bu ñu wax ni ndax li ma gis si jaakaay moy dañoo julli rek tëj ko man li ne ko suma jere jeuf soxna maryam ci laaj bu am solo bi nga laajte ana lan moo tax ñun suñuy jaaka ak suñuy juma mënatuñ cee am njëriñ la toll ni li jàkka daan taxawee démb ci société bi laaj bu am solo la boo jàngee taxawaayu jàkka démb ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa li jàkka daan taxawee nga méngale ko ak ñun suñ jàkka yi tey di nga gis ne suñuy jàkka ak suñuy jumaa taxawaay bañ ñu waroon a taxawu ci société bi ci wàllu defer ak wàllu njëriñ lu ci bari manqué na ndax li ko waral mooy yenent bi nam gisee woon jàkka ak saxaaba yi nañ gisee woon jàkka ak ñun niñ gisee jàkka tey dafa wuti ñun suñuy jàkka dañ ko tënk rekk yemale ko ci julli fa farata buñ jullee farata ba sëlmal ñu ubaat jàkka ji tëjaat bunt yi ba beneen waxtu jooju la jàkka du mën a joxe waru gar bi mu war a joxe dëgg-dëgg joxe mu am jàkka yoo xam ne walla jumaa yoo xam ne ajjuma ak ajjuma lañ fay tudd yàlla walla lañ fay dégg diine kon jooju la jàkka du mën a joxe waru kon suñ buggee suñuy jàkka dund joxe seen warugar comme ni jàkka meloon démb faawu danañ jog ci takk giñ takk jàkka ci yemale ko ci allahu akbar asalaamualeykum def fa benn baaqiyaatu saalihaat rekk jog dem foog ñu génn ci loolu xam ne jàkka njëriñam paase na loolu ñun nag li tax suñuy jàkka mënut a joxe warugar bi mu war a joxe ci société bi mooy li ëpp ci suñuy jàkka léegi jàkkaay yéebaanekaay la jàkkaay waxtaanekaayu politik la jàkkaay xulookaay la jàkkaay yëkkatikaayu kàddu la te jàkka loolu taxu koon a jóg ne lépp lu réer dañuy dem ca jàkka ji yéebaane ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noon na man sami'a rajulan yunshidu dallatan fi l masjid fal yaqul laa raddaha allahu aleyk fa inna al masajida lam tubna li haada yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne dégg ngeen ko mu taxaw ci jàkka ji yëgle di yébaane lu réer na ngeen ko wax ne li ngay yébaane tam réer la yàlla bu la ko yàlla mos di delloo yàlla bu ko gis kon suñ bëggee suñ jàkk yi joxe seen waru gar faawu ñu wattandeku taxaw fa di yéebaane lu réer waxtaanee fa mbiri politique walla def ko mu nekk barab boo xam ne pour xulookaay kese la ndax jàkka loolu taxu koon a jog kon lii moo tax suñuy jàkka ba léegi seen warugar mënuñ koo def ba mu mat jàkka yàlla nee na suma néeg la maa moom lol motax bo demé ci alquran nga fekk yàlla di wax ni wa annal masajida lillahi jàkka pour kan la mune pour man la man yàlla ken momuko mako mom gis nga def ko idafa ci bopam bolewu ci ken neena suma néeg la man yàlla wa annal masajida lillah inma ya'muru masajida la kon gis nga jàkka def ne mako mom waruñ fee jaamo kenn waruñ fee tàgg kenn ku dul man yàlla moo tax yonent bi sallallahu di wax ne man bana lillahi masjidan ku tabaxal jàkk ku tabax jàkka ngir yàlla maanaam kon jàkka da koy tabax ngir yàlla parce que jàkka yàllaa ko moom su ko defee kon feebar bii moo ñu dal tey moo tax ñun suñuy jàkka mënuta a génne njëriñ li nga xam ne moom la jàkka daan génne démb ci jamono yonent bi sallallahu wa sallam ak jamono xulafaaw yi kon li nga laaj lu am am solo la ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di ñaan yàlla mu déggloo ñu wax ji te gannaaw wax ji mu xiir ñu ci ñu mën ko jëfe soxna mariyam and whosoever can afford should visit the house on a pilgrimage as duty to Allah. Whosoever denies should remember that Allah is independent of the people of the world. This year, Afisel is offering you the chance to travel to Mecca to perform the fifth pillar of Islam, Al-Hajj. Yes, 12 free air tickets to Mecca are there for you to win including travel allowance and accommodation. Simply recharge the $100 scratch card or e-voucher to enter the weekly draw and get the chance to win a free full hatch package to Mecca. Yes, 12 Afisel subscribers will have the opportunity to travel to the holy city of Mecca, recharge $100 credit and get the chance to win an all expenses paid trip on the journey of faith to the holy city of Mecca with Africell. May all your prayers be answered. kon Delu yi dellu siwaat nañ ak yéen ci rafetal sa dundin ñu fàttali leen rek ne ba léegi ñu ngi ànd ak yéen di waxtaanee njëriñu jàkka ak soloy jàkka ci société bi Ustaz, jërëjëf yi ñu seexal jotaay bi oustaz suma déggé ci li nga wax dafa melni ni wareef la si ñun ñu tànnal jàkka yi boromi xam-xam su boobaa jàkka door mun a def wareefam. waaw waaw Ibrahim jàkka suñ bëggee mu joxe waru garam ci society bi faw ña koy jiite dañuy war a nekk ay boroomi xam-xam ndax xam-xam mooy ilimaani jëf su manqué ci jëf rekk jëf ja dootul mën a baax bokk na ci feebar yi ñu dal ba tax suñuy jàkka mënuñoo dund mooy ñàkk gu ñu jël jàkka yi ak jumaa yi jox leen ay boroomi xam-xam yu koy jiite faw ki jiite jàkka ji suñ bëggee jàkka ji joxe waru garam ki koy jiite foog mu nekk koo xam ne boroom xam-xam lay doon loolooy tax mu mën a jëfandikoo xam-xam boobu ci jàkka ji jàkka ji mën a dund mën a jëriñ gox bi nga xam ne fa la jàkka ji ne loolu moo tax borom bi tabaraka wa di wax ci alquranul karim نو استبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن سريتي قال لا ينال هدي الظالمون سلمان إبراهيم بكو يالا نتو ديكو نتو ديكو نتو بجسني إبراهيم نغمم تي يالا دقنا مو باس مبولم نتو يالا sunu borom na ko fu mu nekk nag dinaa la fal def la nga nekk ilimaan ci kanam nit ñi sunu maam Ibrahim def ko ne xanaa dang ding ci boole waale suma doom yi ak suma njaboot gi ak suma sët yi yàlla na ko déedéet duhul ko jur ku nekk dafa war a nekk ilimaan comme yow suma ma kóllëre gi mu ne ko amu ah, ne ko duma ko jox koo xam ne tooñkat la kuy wàcc yoon kon ci loolu ngay jànge ne kon juma ak jàkka duñu ko jox doo ko jox sa waay danga koy jox koo xam ne moo ko yeyoo jox ko koo xam ne boroom xam-xam lay doon ñun nag suñ jàkk yi li ñu sonal mooy suma